yeewi askan wi ñoom tim nee nañu dinañu amal rassemblement fukki fan juróom-ñeent ci weeru mai wi nga xam ne moom la ñu dëgmala yéen kaay gi nee ñi nga xam ne ñuy waa Pastef ñoom tim dàq ñu benn yoon amal manifestation ca buntu palais ba yéen kaay gi ñi nga xam ne ñu bëgg amal ay manifestation ci réew mi ñi nga xam ne ñooy syndicat jàngalekat yi ñoom tim ci ab gréew ndax ñi nga xam ne ñooy waa CUSEMS ak waa SAEMS ñoom nag tey jii ci alxames ji dugg nañu ci bu Sénégal moom yéene kaay gi ne na yokk ci syndicat bi nga xam ne moo ëmb ñiy liggéeyee impôt et domaine ñoom ti mer nañu ba maara détaillé ndax syndicat boobee tëj gi ñu tëj ba siiru jomaay fay loolee moo leen metti ba tax ñoom nee nañu dinañu amal ab gerew ñaar fukki fan ñaara jàpp ñaar fukki fan ak ci weeru mai wii nga xam ne moom la ñu nekk réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky Sall ma ci guddi gu bët séddigu la ndax manifestation Barthélémy Dias ni ki démb daan na yëkkatewaat ay kàddu ndax nee na bu dee am kenn koo xam ne mooy théâtre Ousmane Sonko la moom Barthélémy Dias nee na Ousmane Sonko dafay manipuler coalition Yewwi Askan Wi moom maire bu Ndakaaru daan nay wax ne politique pensée unique loolee moom dinañu ko dakkal réew mi rawatina nag ci biir coalition Yewwi Askan na lu jëm ci wàllum wax lu dul dëgg gi jamono ji dafay waaj a nee na lu jëm ci wàllum dialogue bi journal bi di Direct News nee na dialogue politique bi jamono ji xaajale ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi journal bi nee na Ousmane Sonko moom li mu wax nee na du Khalifa Ababacar Sall du Karim Wade Barthélémy Dias nee na Ousmane Sonko na ci li nga xam ne mooy dialogue bi moom Bart daan nay wax ne Ousmane Sonko falaguñu ko maanaam muy saaga ak di menacé waate bu ñu ko falee xanaa dafay lekk nit ñi kàddu yi Barthélémy Dias la yéen a kaay gi de Le Quotidien ci mu njëkk ma ñu fekk fa doomu Sampol Dias bi daan nay wax ne coalition Yewwi Askan Wi du am mouvement boo xam ne benn leader rek lay soutenir yéen a kaay gi de Libération ñu xëy nañu amul kenn koo xam ne mën naa tere bokk Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu la yéen kaay gii de Les Échos xëy xibaar naa ñu démb ca conseil des ministres ba président Macky Sall daan nay félicité Barthélémy Dias ba xolam sedd diggante Bart ak Macky jamono ji seen diggante neex na lool journal bi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naa ñu dialogue politique bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko ci réew ñu bari bi ko daal di gàntal journal bi nag na dialogue la boo xam ne boo muytuwulee ci ñett nit lay dox diggante Macky Sall ak Khalifa Sall Macky Sall digg bi Karim Wade gauche Khalifa Sall droite kaay gii di l'info xëy fekk fa Alioune Tine daan wax ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat baaxul ci réew mi baaxul ci démocratie réew mi baaxul ci jàmmi mi baaxul ci kaaraangi réew mi 2019 nag régime bi ñoom fexe nañ ba écarté Karim Wade a Khalifa Ababacar Sall jamono jii tamit gis ngeen ni nga xam ne moom la ñu doxalee ak Ousmane Sonko mi nga xam ne moo nekk opposant bu njëkk ci régime bi yéen kaay gii di La Tribune xëy ci dialogue bi nga xam ne ab deal la ko tuddee dialogue boo xam ne président Macky Sall moo ko woote ngir def ay deal dialogue boobee boobee nag maanaam Sénégal dina ci ñàkk lu toll ci benn milliard yéen kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Lat Diop moom nag ma ngi avertir di dànkaafu Ousmane Sonko ci àtte bi nga xam ne a dox digganteem ak Adji Sarr fukki fan ak juróom benn ci moom la ñu tëg ma la moom Lat Diop nee na Ousmane bu wuy siwul yoon dinañu ko andi par force yéen kaay gi L'As xëy di ñu xibaar naan ñu Oustaz Assane Seck mi nga xam ne moom la ñu tegoon loxo ginnaaw kàddu yu mu yëkkati woon ba léegi ma ngi ci ay retour de parquet yéen na ci tàggat yarama ngir nag saytu 14 milliards yi nga xam ne moom la ñu joxoon ministère ba ngir nag ñu organiser si li nga xam ne mooy coupe du monde bi yëpp journal bi nee na bu leen fàtte Sénégal ci coupe du monde bi huitième de finale rek fa la Sénégal yi am te 14 milliards yi mondial bi yëpp la woon waaye nag li nga xam ne jot nañu ko dépensé maanaam ëpp na fukki milliards ak benn journal bi nee na maanaam mën nañu ko xayma ne match bu nekk lu ëpp ñaari milliards la ñu si doon dépensé journal bi nee na match amical Sénégal Bolivie ak Sénégal Iran ëpp na ñaari milliards journal bi nee na Yankhoba Diattara bi ñu ko indee ci ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yarama da doon ne jot na ko faa luyee deux cent millions la ko doon luyee journal nga xam ne changé na ko soixante millions la ko sopparñee journal bi nee na ay factures yoo xam ne fayuguñu ko ci hôtel bu jam ñaajo te ay facture la yoo xam ne dafa seer ba maara détail yi daas nag bu ministère bi ñu mu wàllum tàggat yarama moom lu toll si juróom fukk ak benn ci nit ñoo xamante ni jël na leen yóbbu na leen Qatar yéene kaay gi nee na lu toll ci huit cent millions yoo xam ne jëlee nañu ko ci compte trésor te ba léegi gars yi mënuñoo andi xaalis boobee fan lu ñu ko dugal lay journal bi di Rewmi Quotidien nee na ci biir réew mi li ñu fiy dégg lu jëm ci wàllum jafe-jafe suuf bëri na lool fu ci mel ni Ngor ñoo ngi ko fay dégg fu ci mel ni Pikine ak Guédiawaye ak Ndengler ak Mbour ñoo ngi ko fay dégg journal bi nee na ginnaaw na Ngor soo moytuwulee maanaam tension dina am fi nga xam ne mooy bande filao yi nekk ci Guédiawaye yéen kaay gi di bés bi xëy diñu xibaar naan ñu accord yi nga xam ne amoon na diggante nag président Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo dëkk Ngor maanaam kenn ku nekk jël 3000 mètres carrés waaye nag ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi dañoo lànk ba tëdd sa naaj wa bi di ko dëgg la sax am na benn oto croix boo xam ne dañu koo tàll vox populi nee na li nga xam ne moo yàqu ngor bëri na la waaye nag li nga xam ne moo am ba desal mer mi moom ba léegi ma ngi ci biir ngor yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na ministre de l'intérieur de Antoine Diome communiqué bi nga xam ne génn na ko li mu ci bëgg misaal daal mooy xale bu jigéen bi faatu faatoowul ci affrontement yi nga xam ne moo amoon diggante askanu ngor ak ñi nga xam ne ñooy takk derrière waaye nag communiqué boobee nga xam ne ministre bi génne na ko Birahim Seck nee na yeyul kenn ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk ngor ñoom nag xotti nañu communiqué bi nee bu jigéen boobee bal balle réelle la ñu ko dóora am na keneen koo xam ne tamit faatu na gis nañu ko yéen kaay gi de Le Quotidien yor a xëy yóbbu ñu ca diwaanu mairie bu Ziguinchor journal bi ne na nag scandale yi nga xam ne gis nañu ko ci mairie bu Ziguinchor jamonoy Abdoulaye Baldé ak nag chiffre yi nga xamante ni maanaam gis nañu ko loole nag wane ne yorin wu bon wi Abdoulaye Baldé yore woon mairie bu Ziguinchor Le Quotidien yor yor moo fi ñëw ak chiffre ak ay